yaa ngi ne fas luñu lépp xaalis la fil xadis mbërëg mbërëg lay jàngale mbërëg nag mooy deret bi nga xam ne jigéen ñu bëri dañ ko gis seeg waaw weer wala boog lu si gën a bëri daat maanaam lu si gën a néew su lañ koy gis waaw dana dem daat ba waaw quinze jours maanaam fukki fan ak juróom waaw mën nañ kaa gis nag te duñ ko gisaat wala balaa balaa ñu koy mu yàgg nee wa nisaa u jigéen ñi ñetti xaaj lañ kooku wa nisaa u jigéen ñi nga ko ñetti xaaj lañ de mubtadaatun ku tàmbalee gis mbërëg wa muctadatun ak ku baaxoo gis mbërëg wa xaamilun ak aji ëmb di gis mbërëg jigéen ñi daal ñetti xaaj lañ bu si njëkk mooy ki nga xam ne ba mu tàmbalee gis mbërëg yàggut ñaareel ba ki xam ne ba ko tàmbalee gis yàgg na yàgg na kaa ñetteel bi mooy ki nga xam ne yàgg xo benn yàgg na gis wala boobu mu koy doo gis waaye nag dak dak waaye nag dafa dafa ëmb di ko di ko gis ñu ne wa aktarul xaydi ñu ku ñu gën a bëri <coughs> wa aktaru xayd lu gën a bëri si mbir ak li mubtada ati aji tàmbalee gis mbir ak xamsata achara yawman fukki fan ak juróom la de nee na ku tàmbalee gis mbërëg kon mi ngi ñëw mi ngi ñëw yow si ki xam ne dafa doog doog dafa gis mbërëg nee na ku tàmbalee gis mbërëg daal lu gën a bëri si fan mbërëg yi fukki fan juróom la walil mu'tadati ñeen na baaxoo gis mbërëg aadatuha aadam de ku tàmbalee gis mbërëg moom fukki fan juróom la waaye ku baaxoo gis mbërëg moom moom am na aada aadam nag moom moo koy xam xaaral mën na nekk ñetti fan mën na nekk ñeenti fan wala juróom wala juróom benn ba fukk juróom de waaye nag du ko paase du paase fukki fan juróom dégg nga fa <coughs> si jigéen gi adamu deret bi yokk talaatata ay zaadat na yokk talaatata eh, ayaam ñetti fan de maalam tujaawis fa fekk na ku tàmbalee gis nee ku baaxoo gis mbërëg bu nekkee dafa am aada maanaam aadaam daat masalan cinq jours la juróomi fan léegi mu dem ba juróomi fan yi jeex gisu ko maanaam mu dem ba juróomi fan yi jeex te wul kooku na yokkaat ñetti fan su jee su su su arrêté mu dagg dem julli ji su arrêté wul nag ba tey mu dagg dem julli kon bu nekkee moom aadaam euh, ñu joxale beneen misaal bu nekkee ne aadaam juróom-ñetti fan la maanaam huit jours mu dem ba huit jour yi jeex deret ji arrêté wul su boobaa na yokkaat yi ñetti fan te mooy neuf dix onze te mooy euh, juróom-ñeenti fan ak fukki fan ak fukki fan ak benn su deret ji arrêté mu dagg dem julli ji su arrêté wul tamit mu dagg sangu dem julli ji xam ne loolu feebar la bu nekkee nag moom juróom-ñetti fan mooy aadaam juróom-ñetti fan yi jeex deret ji dagg kooku gën naa noppale na dagg dem julli ji rek amaa bu nekkee <coughs> aji tàmbalee gis mu rek la moom moom lu gën a bari si fanam fukki fan ak juróom la su demee su ko gisee ba fukki fan ak yi jeex su daggee na dagg na sangu dem julli ji su daggu timit na sangu dem julli ji amma bu nekkee nag deret ji dafa dafa ñàkk mat fukki fan ak juróom mu daal di dagg comme ça fukki fan la am daal di dagg su boobaa luñ koy wax mooy na dagg na sangu dem julli ji waaye Euh, mu mu na sangu dem julli ji toog di xaar nag léegi su toogaatee lu mat fukki fan ak juróom der ji doog a ñëw na xam ne loolu noonu mbërëg bu bees la na tàmbaliwaat beneen mbërëg bu bees amaa su toogee lu matut fukki fan ak juróom der ji ñëwaat na xam ne mbërëg mu amoon fukki fan la na jël mbërëg boobu noonu tàppe ko si bële mu nekk fukki fan ak benn mu continuer su demaalaatee cinq jours maanaam su dama laata juróomi fan mu nekk fukki fan ak juróom mu xam ne deret ji léegi mbërëg moomu jeex na mu sangu dem julli ji di xaaraat yeneen fukki fan ak juróom ñëwaat mu doog gisal mbërëg kon <clears throat> aji tàmbalee gis mbërëg daal fukki fan ak juróom la su fukki fan ak juróom yi jeexee na sangu dem julli ji dégg nga moo xam dagg na wala daggut bu nekkee ne fukki fan yi juróom yi matut mu daal di dagg na sangu dem julli ji toog di xaar su toogaatee fukki fan deret ñëwaat na xam ne loolu mbërëg mu bees la bu nekkee matu fukki fan ak mu ñëw na xam ne mu njëkk ma la ndax si tàppe continuer fukki fan ak juróom yi su daggee mu dem julli ji su daggul mu dem julli ji dégg nga amma aji baaxoo gis mbërëg na moom dañ ne la su aadam su aadam jeexee su daggee na dem julli ji su daggul na yokk ñetti fan su ñetti ñetti fan yooyu jeexee su daggee na dem julli ji su daggul na dem julli ji waaye nag ñetti fan yooyu day day dafay fekk su yokkee ñetti fan du fukki fan a juróom comme ça ni eh, su dee bu nekkee adam dégg nga fukki fan ak eh, ñett la eh, mooy treize jours léegi mu am treize jours daggut kooku du yokk ñetti fan ndaxte su yokkee ñetti fan dafay nekk fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom fukki juróom-benn te mbërëb du passé fukki fan ak juróom suba naka lay def dafay yokk ñaari fan naka noonu tamit bu nekkoon ne adam fukki fan ak ñeent la benn fan lay yokk bu nekkoon juróom lu du yokk dara moom kooku masalaam ku baaxoo gis mbërëg ak ku tàmbalee gis mbërëg <coughs> dégg nga wali xaamilin aji ëmb baada talaatati ashhurin ginnaaw ñetti weer xamsata ashara yawman fukki fanak ak waaw juróom wa naxwaha ak yu niroog mooy ñaar fukki fan lan moo tax mel ne la aji tàmbale maanaam aji ëmb su ginnaaw bam demee ñetti fan maanaam ñetti weer parce que aji ëmb moom xam nga ëmb dana dem ba juróom benn weer wala sax juróom-ñeenti weer bu nekkee dafa ëmb si weer bu njëkk bi ak si weeru ñaareel bi ak si weeru ñetteel bi kooku bu tàmbalee bu nekkee aji tàmbalee gis mbërëg la dañ koy jox ateb ku tàmbalee gis mbërëg bu nekkee ku baaxoo gis mbërëg la dañ koy jox ateb ku baaxoo gis mbërëg te mooy su ëmbee si premier eh, premier weer maanaam weer bu njëkk ak weeru ñaareel ak weeru ñetteel am maanaam bu demee nag ba passé weeru ñetteel dugg weeru ñeenteel su boobaa nag moom lu gën a bëri si mbërëgam fukki fan juróom la ba ñaar fukki fan kon lu gën a bëri si mbërëgam ñaar fukki fan la dégg nga moo xam moo xam moom balaa muy ëmb dafa nekkoon ku baaxoo gis mbërëg wala boog dafa nekkoon ku tàmbalee gis mbërëg daal comme que am ñetti ñetti rek su boobaa euh, mbërëgam dana dem ba ñaar fukki fan maanaam dana dem ba euh, kii nii fukki fan juróom jëm ñaar fan dégg nga nga déggee si ne moom moom aji ëmb jooju noonu su demoon maanaam su gisoon mbërëg ba am fukki fan mbërëg gi maanaam su gisoon mbërëg ba am fukki fan mbërëg gi dagg su boobaa dana sangu dem julli ji de mais dana toog di xaar su toogaatee fukki fan ak juróom mbërëg doogu ñëwaat na xam ne loolu mbërëg bu bees la waaye bu nekkee matut fukki fan ak ak juróom deret ji daal di ñëwaat na xam ne mbërëg mu bàyyi woon la maanaam mbërëg mu daggalu noonu na jël fan boobu tàppe ko sax mu nekk fukki fan ak benn mu daal di continuer jëmale ñaar fukki fan amaana bu nekk dafa gis eh, maana dafa gis mbërëg ba dem ba ñaar fukki fan jeex su daggee na leen julli ji su daggul na leen julli wa baada sittati ashhurin ginnaaw juróom-benn weer <coughs> ashuruna ñaar fukki fan la lay wan waxa ak yu ñaar fukki fan te mooy fanweer fan kon nag diggante ñetti weer ñeenti weer juróomi weer kooku noonu lu gën a bëri si fanam fukki fan ak la ñaar fukki fan waaye nag bu nekkee nag am na xas na bat am juróom benn weer jëm juróom ñaar ñaari weer juróom ñetti weer juróom ñeenti weer foofu nag lu gën a bëri si mbërëgam ñaar fukki fan la ak weer maanaam lu gën a bëri si fani mbërëgam weer la moo moo xam nag balaa muy ëmb ku tàmbalee gis mbërëg la wax naa la ko a ku baaxoo gis mbërëg kooku noonu bu nekkee dafa tàmbale bu nekkee mbër gi daal ñëw na su continuer gis gis gis gis ba weer bi dee su daggee na dem julli ji su daggut na dem julli ji amma bu nekkee nag dafa dagg su boobaa dafay sangu toog toog di xaar bu nekkee mbërëg ma ñëwaat ginnaaw ñaar fukki fan ak juróom fukki fan ak ne mbërëg mu bees la bu nekkee nag ñëwaat na balaa fukki fan ak juróom yi demal na ne mbërëg gu njëkk gala de na ko si tàppee boole ko sa weer gu dee maanaam jëmale 30 jours yi mat feneen xataanem dagg na adamu dereja lafat na tàppe waaw ayaama hoo fanu mbërëg ga xataa tu kamila ba matal aadata aadam waaw nee bu nekkee nag sa deret ji dafa dagg te fan maanaam kii nag fii nag aji tàmbalee gis mbërëg aji aji baaxoo gis mbërëg lay wax bu nekkee eh, deret gi dafa dagg ta aada gi matut dégg nga bu nekkee dafa dagg gi <coughs> matut maanaam bu nekkee deret gi dafa dagg te heure maanaam te heure bu dagg jotut maanaam te aadaam jo matagul su boobaa day sangu su deret ji dellusiwaatee te matul fukki fan ak juróom na jël boole ko sa lum lum lu mu amoon jëmba aadaam mat mu saa ne moom cinq fan la woon maanaam cinq jours la woon te mooy juróomi fan mu gis ñaari fan deret ji dagg ko kooku na sangu dem julli ji toogaat di xaar bu nekk deret ji dellu si waa na balaa fukki fan ak di mat ku na xam ne mbërëg bu njëkk la na jël fan boobu noon teg ko si ñaari fan yi mu amoon jëmale eh, juróomi fan su juróomi fan yi su daggee na dem julli su daggut na jël aada googu noonu tamit juróom fan yokk si yeneen ñetti fan su daggee mu julli ji su daggul mu julli ji amaa nag bu nekkee borom fukki fan juróom la moom tamit ku gis mu rek waxoon nañ <coughs> du dagan waaw lil xaaidi ñeel aji mbërëg waaw salaatun julli wala sawmun du caageen koor wala tawaafun du wër kaabaga wala masu mushafil qur'an wala masu mushafin du laal kaamil alquran wala duxulu masjidin du dugg jàkka wa alayha war na ko xadaa u sawmi fay koor ga duna salaati walis julli ga waaw nee na aji mbërëg daal du dagan mi julli du dagan mu xoor du dagan mu wër kaabaga du laal alquran du laal alquran du dugg jàkka dégg nga julleem gi nag du ko fay mais koor gi nag da koy fay parce que julli gi su ko naree koy fay dafay sonn laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa amma koor nag moom par at ak allah neex naa fay moo tax dafay fay koor gi de ah, waaye nag du fay julli wa qiraatuha jàngam alquran nag wa qiraatuha jàngam moom jigéen gi jaizatun aji dagan la amma ñàkkatee kaamil moom di jàng alquran noonu rek dagan na wala yaxillu du dagan li zawjiha ñeel jëkkëram farjaha payam jigéenam daal <clears throat> maanaam jëkkëram daal muntal payam wala ma bayna suratiha du caageen la nekk si diggante jimba ba waru ko ba tey ha ba si bati oome hatta tax hatta taxtasila ba mu sangu de da daal mooy jigéen ba yërëm rek mën naa bànneexu si moom bépp façon bànneex ba des sëy moom dégg nga ngir maag na ñoom dañoo aay mu la nekk si diggante jimbax ba ba si bati oome ngir bañ seetaane mën ko bam joteeg moom moo tax mën naa moytu la nekk si diggante jimbax ba ba si bëti omiya après daal di bànneexu sala des sa soxnaam sa soxna su am rek sana bu nekkee na rek ba jeex na <coughs> naka tamit bu nekkee rek ba arrêté na te jigéen nga sangoo ko du dagan tamit mu joteeg moom dégg nga amaa bu sangoo nag ba pare léegi dagan na ko façon li fasalay wax la fi nifaasi si gësin wa nifaasu gësin kal xayda ko mbërëg fi man'ihi waaw si si si tereem dégg nga mbërëg daal la muy tere lay gësin di tere gësin nag wax naa la mooy tere di la ji nga xam ne mooy génn si am si jigéen gi di am doom dégg nga mooy tere ci njureel daal moom nit ki nga waaw jigéen su yoree mbërëg wax nañ la du koor du wër kaaba gi du jàng du du lal kaamil alxuraan du dugg jàkka dégg waaye dana fay koor gi mais mais du fay julli gi waaye mën naa jàng alxuraan dégg nga te tamit ah, jëkkëram du ko laal maanaam du jote moom balaa lu mooy mu sangu de loolu noonu tamit moom lañuy defaat si atte gësin rek waak taruhu lu gën a bëri si fanam ya moom gësin si tuuna yowman juróom benn fukki fan la te mooy ñaari weer dégg <coughs> moom lu gën a si fanam mooy ñaari weer waaye nag mën na kaa gën a yées nit ki mën na kaa gis balaa ñaari weer di mat balaa ñaari fan sax di mat mu kii de dagg de fa isin qataan dem dagg na adamu dereje qablaha njëkk juróom benn fukki fan yi walaw fi yawmin walaw fi yawmin wiladati donte sax si bisu njuréel gi la ixtasalat na sangu wa sallat tem julli da kaa gis rek mu daal di dagg donte sax si bisu njuréel gi la la dagg kooku na sangu dem julli ji <coughs> ida awadaha nem dellu na nem dellu si na jëm si moom maanaam nem dell si na sa jigéen ga adamu deret ga fi za wada nem dellu si nem dellu si na adamu deret ja fi in kaana nem nekk na baynahuma seen diggante xamsata ashara yawman fukki fana juróom ak sara baalu gën a bëri kaana nekk na athaani bu ñaareel ba xaydan dimbarag nee na bu nekkee nag dafa dagg doon sax si bisu njuree la dagg na sangu dem julli ji léegi nag mu toog di xaar bu nekkee deret ñëwaat na te fekk fukki fan ak juróom seen diggante man na fukki fan ak juróom na xam ne mbërëg la na na dem na léegi jàpp ne moom mbërëg la yor dem ak moom bu nekkee ku tàmbalee gis mbërëg la na yor na jàpp ku na xam ne moom ku tàmbalee gis la bu nekkee ku baaxoo gis mbërëg la na xam ne tamit ku baaxoo gis mbërëg la wa illaa waaye nag bu nekkee matul fukki fan ak juróom lay wax ne wa illaa bu matul fukki fan ak dama nan damma damma na tappe waaw kii ni deret bi ni ilal awali jëm si bu njëkk ba wa kaana mu nekk min tamaamin nifaasi si mat a gësin nga de bu nekkee nag matul fukki fan ak juróom na jël fan eh, fan bi ni eh, boole ko ak lam njëkkoon a am dégg nga daal di jëmale juróom benn fukki fan dégg nga su jeexee mu dagg na sango dem julli ji su bu daggaatee dégg nga na sanguwaat tamit dem julli ji bu toogaatee euh, badre ñëwaat te mat na fukki fa ak juróom na xam ne mbërëg la su matul fukki fa ak juróom na jëlaat boole xaat sa lañ sa xalam amoon yoonu ñaareel daal di continuer waat rek waaw fas lu wax la fi la awqaat si waxtu yi <coughs> waxtu yi lay jàngale al waxtu waxtu al muxtaaru bara bañ tànn waaw li duhri ñeel tisbaar min zawali shamsi mi tukkee sa jëng ak jant ba ila axiril qaamati jëm ba sa mujj qaama ga dégg nga wax na sa quran inna salaata kaanat ala muminina kitaaban mawquta waaw julli waaw farata dañ kaa farataal si jullit ni waaye dafa ko waxtu nee nag waxtu tusubaar waxtu waxtu buñ tànn si tusubaar mooy jàng ak jant ba jàng ak jant ba mooy lan mooy suñ demee ba ay boori dégg nga une heure yooyu noonu euh, si bëccëg da nga gis ne maanaam ay booy treize heures si bëccëg da nga gis ne kii ni <coughs> jant bi dana jógee côté penku di ñëw di ñëw di ñëw ba si sa digg bopp bi su demee nag ba digg ba si digg bopp bi di xaw wàcc sa digg bopp xam nga penku lay jógee moom jant ba léegi su ñëwee ba si sa digg bopp bi di wàcc sa digg bopp bi noonu di jëm xarfu boobu noonu tisbaar jot na ba mooy min zawali shamsi si jéng ak jant bi xam nga boobu noonu euh, soo xoolee si digg bëccëg gi jant bi dafay ñëw ba si digg asamaan si léegi nag si jéng nag di jëm euh, xarfu pour soxi jamono jooju noonu lay lay lay layti si daal di jot nga ne ko nag fan la yem mi ne ila axiril xaamata jëm ba sa mujj xaama ga mm, mujj xaama ga nag mooy nit ku su demee ba tolloog takkandeeram dégg nga xam nga soo demee ba ay boori trois heures ñooyu noonu da gis ne nit ki moom ak takkandeeram ñooy xaw a tolloo maanaam ñooy ñooy ñooy ki ni tolloo boobu noonu la tisbaar daal di xem mooy mooy waxtu bi nga xam ne moom lañ tànn dégg nga nga xam ne nit ki su amul ngànt fa lay julli waxtu bi yëpp may nañ ko sa mu julli fa te dana am tiyaaba du am benn bàkkaar kenn du ko toppee dara waaw da mooy su mu eh, zawal daat soo bëggee xam dakki ko boolu boolu ineer dégg nga waaye nag eh, mu jëqaama gi soo bëggee xam dak ko eh, fin maanaam si si waxtu maanaam si trois heures di waaj a génn dégg nga jamono jooju bay dugg quatre heures jamono noonu daat waaw tisbaar ma ngay génn de wal muxtaara muxtaar waxtu buñ tànn lil asri ñeel takkusaan minal qaamati mi ngi commencé sa qaama ga maanaam fa tisbaar xem fa la commencé ilal isfiraari jëm ba si gelek jant bi te mooy zone ak jant bi nee na waxtu tisbaar daal déedéet waxtu waxtu takkusaan daal fa tisbaar xem te mooy mujj xaam ak mooy nit ku demee ba takk nderem tolloog moom nga xam ne eh, kii ni tisbaar génn na fa la takusaan nga ne ko fan la yem mooy ba si gëlëg jant ba ne <coughs> ne ko la mooy soo demee ba ay soo demee ba tisbaar jot ba nga xam ne waaw jant bi mujj na di commencé rëy dégg nga nga xam ne day mel day mel jaune bi lakk mburu boobu noonu la muxtaaru tisbaar yi waxuma la daroori bi de muxtaar mooy waxtu buñ tànn fa la yem de wala sax nga ne euh, bul wax gerek gente ba mais waxal su demee ba nit ki euh, takk ndeeram tool euh, mat ko ñaar xam nga bay tisbaar di waaj jot maanaam bay tisbaar di waaj génn nit ki moom ak takk ndeeram woon waaye nag takkusaan si génn nit ki moom ak takk ndeeram ñaar kii ni takk ndeeram gi ñaar ñaar la koy mat kon su boobaa takk takkusaan ma ngay waaj génn nena wa daruri huma seen waxtu lor ñoom ñaar indal xurubi jëm na ba jant so waxtu tisbaar ak takusaan seen daruri mooy waxtu waxtu mooy seen waxtu daruri mooy soo amee ngànt waxtu booy julli si ñoom dem na ba jant bi so dem na ba jant bi so kon jàppal tisbaar am na waxtu muxtaar am eh, am na waxtu daruri tàkkusaan am na waxtu muxtaar am na waxtu daruri tisbaar waxtu muxtaaram mi ngi tàmbalee si jéng jant bi wax naa la mooy jéng jant bi mi ngi dem ba sa mujj xaama gi wax naa la mooy mujj xaama mooy eh, mujj xaama dégg nga léegi nag fam yem noonu tisbaar fala daruriyam commencé fala daruriyam mooy waxtu lorom fala commencé jëm jant bi so tàkkusaan am na waxtu muxtaar am na waxtu daruri waxtu muxtaaram mi ngi tàmbalee si mujj xaamagam mooy fa fa euh, tisbaar yem jëm dégg nga su jant bi zone wala su nit euh, su ko su ko takk ndeeram matee ñaar dégg nga fala yem fala muxtaaram yem moom tàkkusaan daruro yem tamit foofu la tàmbalee jëm ba jant bi so kon ñoom ñaar seen waxtu muxta euh, seen waxtu daruri jëm na ba jant bi so waaye soo seetloo waxtu muxtaar waxtu tis maanaam daruri tisbaar moo gën a guddi daruri tàkkusaan parce que daruri tisbaar mi ngi tàmbalee fu muxtaaru tisbaar yem après daal di duggaale si waxtu muxtaaru euh, takusaan dem ba jant bi so amma muxtaar amma daruri euh, kii moom daruri takusaan moom fa takusaan yem euh, la tàmbalee rek jëmale jant bi so wal muxtaar waxtu buñ tànn lil maghribi ñeel timis qadru ma kem li nga xam rek tusalla def nañ julli fii si moom baada shurutiha ginnaaw matalay shartam nee na <coughs> muxtaaru timis nee na muxtaaratam isdaad mooy kem li nga xam ne rek nit ki dana si mën a defaru ba julli su waree jàpp na jàpp dem julli ji su waree eh, tim na tim dem julli ji su waree sangu farata na sangu farata dem julli ji nee na loolu mooy muxtaaru timis waaye ñëpp xam nañ ne takku tàkkusaan daruureem moom ak tisbaar mi ngi yem si jant bi soyee jant bi so nag fala timis commencé parce que nit ki su kooree ba jant bi soo mën naa dagg nit ki su toogee ba jant bi so maanaam ba jant bi man naa julli timis kon kay fala muxtaaru timis yem li kon kon fala muxtaaru timis commencé comme que kay foofu mën nga faa dog mën nga faa jul timis te mooy su waxtu euh, te mooy su bi sooyee kon kay fala muxtaaram tàmbalee dégg nga kon xam nañ ne kon timis am na fu mu tàmbalee léegi ñu xool ba xam am na fu mu yem wala déet mu ne wal muxtaar muxtaar lil isha ñeel gee min maghribi shafaqi mi ngi tàmbalee sa waaw faddoog jant ba maanaam sa faddoog shafaq ga shafaq mooy xonq-xonq yu nekk si jant bi noonu xam nga jant bi su sooyee dana des ay xonq-xonq yu tasaaroo si kaw asamaan si nee xonq-xonq yooyu su demee ba dugg nga xam ne instant lëndëm gi muur na ko su boobaa lay gexe di jot kon ñu xam ne kon foofu la timis yam comme que kay suñ su jant bi duggee su soxee mën nañoo jël timis kon foofu la timis tàmbale waaye su jant su xonq-xonq yi duggee fa la gexe tàmbale kon kay fa la timis kon daal euh, mën ngaa jàpp ne timis daat foofu la yem diggante ba jant bi soxee ak bay xonq-xonq jant bi di di duggee léegi nag fa jant bi jant bi nag di duggee fa la muxtaaru gexe tàmbalee moo tamit ne wal muxtaar muxtaar li isha ñeel gee ilaa maxibi shafaqi jëm na ba sa fàdd shafaq ga ilaa tuluti leyli awali jëm ba sa ñetteelu xaaji guddi gu njëkk ga mi ngi yem moom gexe si ñetteelu xaaji guddi gu njëkk ga te mooy boori 23 heures mooy guddi gi soo ko xaaj ñetti xaaj soo soo commencé dégg nga 19 euh, heures dégg nga 20 heures 21 heures 22 heures 23 minuit une heure deux heures trois heures quatre heures dégg nga cinq heures six heures sept heures dégg nga loolu fukki fan euh, loolu fukki waxtu la ak ñett dégg nga kooku soo xaaj ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi su jeexee rek xaaj bu njëkk bi su jeexee fa la yem te xaaj bu njëkk bi soo ko loon xool mu ngi xem booru minuit kon foofu la muxtaaru gexe yem kon daal muxtaaru geexe mi ngi tàmbalee si xonk-xonk jant bi su duggee mi ngi xem waaw su ñetteelu xaaju guddi gu njëkk gi jeexee maanaam xaaju guddi gu njëkk gi su benn bi jeexee rek xaaju guddi gu njëkk gi maa guddi gu soo xaajee ñetti xaaj benn bu njëkk bi su jeexee rek fa la muxtaaru geexe yem wa daruri huma seen wa waxtu lor ñoom ñaar ila tuluil fajri jëm na ba fajar fenk de waaw su fajar jotee daat muxta la daruri timis ak gexe yem seen daruri nag kon gudd na trop moo gën a gudd sax daruri tisbaar ak takusaan nga déggee si ne moom timis ba mu euh, fa mu fa muxtaaram yem te mooy ba xonq jant bi duggee fa la tàmbalee dem ba fajar waaye gexe moom fa muxtaaram yem te mooy ñetteelu xaaju ma xaaju guddi gu njëkk gi euh, su jeexee fala fala fala muxtaaram yem kon kon kon fala daruri yem tàmbalee jëm ba fajar jot kon daruri timis moo gën a gudd daruri takku e, moo gën a gudd daru di gexe wal muxtaar muxtaar li subxi ñeel suba mina fajri mi ngi tàmbalee si fajar waaw <coughs> te fajar mooy fi nga xam ne waaw daruri timis ak e, gexe fa lañ yem nga ne loolu loolu naka lañ xamee te mooy dégg mooy suñ noddee ma suñ suñ salaato nga nga ne ban heure lañ war a salaatu nag bu nekkee si wàllam heure la dafay wutee des fois ñu def ko six heures des fois ñu def ko sax cinq heures dégg nga des fois nag mu dem bay dugg si dégg nga heure wu sept waaye nag sooy bu nekkee si wàllam asamaan si la soo xoolee ay boori quatre yooyu noonu da nga gis benn leer gu mel ni gennu tëll traversé si digg asamaan si nga yaakaar ne leer gi mooy waay jot te fekk loolu génn ak maanaam fajarul kaadib la mooy fajar gi fen gi boobu fekk na fajar jotagul maanaam euh, fajar gu ñu julli suba jotagul waaye soo demee ba ba si ay soo demee ba ay boori seen kër yooyu noonu wala ay boori si daal si fajar di jot soo xoolee si asamaan si gis benn leer leer bi nga xam ne dafay jugee fii jant bi di war a génnee te mooy côté penku leer googu nag soo xoolee soo xoolee si bi asamaan danga ko gis waaye mu mel li tasaaroo si biir asa si biir asamaan si di si roy maanaam di di tasaaroo maanaam di ronu lëndëm gi da ko gis de da gis ne lëndëm gaa ngi si kawam waaye moom mi ngi si ron lëndëm gi dégg nga mel na li xar di tasaaroo si biir asamaan si ba wala fajar di jot nag nga ne ko fan la yem ne na ilal isfiraada jëm jëm na ba ba set al gu kawe gi su ba jotee daat fa la muxtaaram yem maanaam te lu ñu xamee ne ba jot na te mooy soo demee ba nga xam ne koo jàkkaarloo da nga ko gis maanaam koo jàkkaarloo fële da nga ko gis saa saa nga jege ko maanaam euh, <coughs> soo euh, comme ça soo xamoon benn nit ku tudd Aliou nga xam ne su tollee fële rek da nga xam ne kenn Aliou la su boobaa la ñu xam ne ba seet jot na bu baax su boobaa lay fajar di yem amaa bu nekkee yow nit ki xam nga ko tamit Aliou mais su tollee fële doo ko xam da nga ñëw ba jege ko doo kaa xam bu bëlee kon fajar des na jeexagul dégg nga mi moo tax mi ne mi ne fajiri mi ngi tàmbale fajar ilal isfiraari jëm ba euh, bës seet al ala bu bi wa daruri hu daruram darurom moom fajar ila tuluu shams jëm na ba jant bi fenk de maanaam su jant bi génnee fala waxtu lorom yem nee na kon euh, kon nee na kon fajar am na waxtu muxtaar am na waxtu daruri waaye nag moom moom kese moo bokk xam nga tisbaar taksaan ñoo bokk timis ak gexe ñoo bokk mais fajar moom moom dafa beru am na ñu ne déedéet fajar kay amul amul waxtu daruri waxtu muxtaar rek la am te moom mi ngi tàmbalee sa fajar jot ba si ba ñett bi génn wal qadaa u fi wal qadaa u fay fi ma si la nga xam ne wara dalika nekk na si ginnaaw muxtaar ak daru daat lépp bépp julli buñ julli te julli wuñ ko si muxtaar julli wuñ si daruri loolu fay la soo jullee si muxtaar def nga lañ la sant soo amee lor nga julli si daruri am nga ngànt ba tey amoo bàkkaar mais soo julli wut si moxtaar nga dem ba julli si daruri te fekk amoo benn ngant sa julli baax na te am nga julli waaye am nga bàkkaar parce que waaye waaye tamit julli nga sa waxtu ba amma bu nekkee nag moom julli woo si moxtaar julli si daruri boobu soo jullee bu nekkee ngànt moo tax gaa julli woo si waxtu ba mais amoo bàkkaar parce que ngant la amma bu nekkee nag moom amoo amoo benn ngànt su boobaa sa julli baax na waaye am nga bàkkaar te julli wasu waxtu ba wa man aqara ku yéexee asalaata julli xataa xaraja ba génn waxtuha waxtoom ba fa alayhi war na ko dan bu bàkkaar adimun bay aji màgg ku ne eh, képp ku yéexee julli ba waxtu ba génn kooku daal am na bàkkaar bu màgg illaa yekkoon la mooy mu nekk naasiyan di aji fàtte aw naiman wala mi aji nelaw de <coughs> dégg kon nga déggee si ne commerçant yi nga xam ne dañuy jul dañuy dem jaaye wala taximaane wala liggéeykat yi daal ñi dajale seen waxtu julli ba ba ba wàcc ba ba ñëw bay waaji tëdd daal di ko jàppare daal di këpp-këppal mu jeex ñu dem tëddi ñooñu ñu ñu ngi def bakaaru mag ndaxte julli daal si waxtu ba ak loo yor liggéey lum dis dis bàyyi ko nga dem liggéey bàyyi nga dem nga julli ji parce que dégg nga <coughs> waaw nit daal la ko yàlla sant war na saa góorgóorlu paa mi ngi tuwoo xaalis rek man mu ne illaa yakun lu mooy mu nekk naasin eh, di aji fàtte aw naa'iman wala mi aji nelaw mu nekkee da nga loon nelaw ba waxtu bi génn kooku jégal nañ la ko ndaxte jamono nit ki jamono ju mi nelaw kooku toppatuñ ko daraay bàkkaar nga wala wala sa waxtu bi jot na mais dakaa fàtte kooku tamit jégal nañ ko fekk bu mu koy fàttali ko eh, amul benn bàkkaar wala tusalla defuñ julli naafilatu naafile baada salaati subhi ginnaaw julli suba ila irtifaa'i shamsi jëm ba si eh, yëkkati ko jant ba de nit ki daal su jullee waxtu suba ba pare duñ ko may mu naafile euh, lu may jant bi génn te mooy su jant bi génnee ba leer nañ ba ba nga xam ne saa génn na lu lu toll ni xasabu te te mooy diggante conc ba si waaw loxo yi ba si loxo yi maanaam ba si ba si yi su génnee lu toll noonu su waa mën naa commencé naafile kon diggante boobu naafile dafay xaraam wa baada salaatil asri ak ginnaaw julli takkusaan ila salaatil maghribi jëm ba julli timis nit ki timis julli tàkkusaan ba pare euh, du dagan mu naafile fe euh, kon <coughs> ginnaaw tàkkusaan euh, ba timis naafile fa daganut fa naka ginnaaw soo jullee suba ba bi génn naafile fa daganut fa julli fi julli ba julli timis tamit naafile fa daganut fa waaw baada tuluu'il fajri ak ginnaaw fenk ak fajar ga wirda lu may ab li naa imi ñeel aji nelaw walis dog ba <coughs> ginnaaw julli maa ginnaaw bu fajar jotee xam nga su fajar jotee defar ñaar raaka fajar rek nga daal di julli suba mu jeex amaa naan def di fa def beneen naafile kooku noonu dañ ka aaye lu mooy ki nga xam ne dalaan jug seeg guddi di def dog moo xam wérdu la wala naafile après keroog nag mu daal di rëcc rek daal di nelaw dog ba su boobaa su fajar jotee sax mën na julli dog yooyu ba pare daal julli fajar doogu doogu julli suba wa inda julusi si jamono toog jumaa alal min eh, si kaw min bade alal alal min bari si kaw min barba imaam eh, dafa eh, yéru jumaa dafa jot mu ba si min barba toog waaw nga jug dinaa fele loolu noonu da daganut nga aaye wabaadal jumaati jumaa xataa yaxruja mu génn jumaa ba pare tamit daganut nga nga jug fa dinaa fele lu mooy nga toog lu yàgg nga xam ne instant yi ñëpp génn maanaam ñëpp génn jàkka ja wala boog tong lu yàgg daal mën ngaa jóg naafile wala boog soo toog lu yàgg mën ngaa génn ba génn jàkka ja nga duggaat ah, doog a naafile wala wala nga génn dem sa kër nga naafile foofu amaa ñu pare rek nga jug kabaar loolu noonu ah, daganu dañ kaaye <coughs> dégg nga de faslun li fa salay wax la fii shuruti solaati si shartaay julli shuruti eh, buntu bi shartaay julli lay jàngale julli dafa am ay shart ne shuruti solaati shartaay julli taharatul xadati mooy laab si toj wa taharatul xabasi ak laab si sobe minal badani si yaram wa sawabi ak yére wal makaani ak barab nee na julli fa shartaay julli daal bu si njëkk mooy laab si toj ak laab sobe laab si nag mooy jàpp wala wala sang wala tiim soo ko defut soo defu ñett benn laaboo si toj laaboo laaboo si toj de laab sobe nag laab si laab si mooy loolu laab si euh, kon laab si toj mooy jàpp wala sango wala tiim laab si sobe nag mooy set si sobe yaram bi set sobe wala sax sa sa yére bi set si sobe wala barab booy jullee set sobe kon ñaar wa saturul awrati ak sutural awra mi ñett wa istiqbaalul qiblati ak jublu qibla mi ñeent wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarkul afaali ak bàyyi jef alkathirati bay aji bëri te mooy wax ju bokkul si julli gi ak jëf ju bokkul si gi mi juróom wa awra dégg nga kon lab <clears throat> si sotobe ak lab si toj dégg nga lab sobe lab si toj ak lab sobe ak sutura awra jublu qibla bàyyi wax bàyyi jëf ju bokk si julli gi loolu mooy sataay julli su jàppuwut sanguwut tiimut su jullee julli baaxut su jullee julli baaxut bu nekkee moo ko tay su jullee julli baaxut bu nekkee nag tayut ko dégg nga dafa dugg ba si biir julli gi xam ne moom kat jàpput sanguwut tiimut na dagg julli gi doon sa waxtu bi dafay génn mu dem defari ko mu dem defari ñëw commencé waat julli gi bu nekkee moom waxtu baa ngi nii waaye xam xam ne moom laabut mun ta laab munta jàpp munta sangu munta tiim dégg nga te munta jàpp tiim munta sangu waaye tiima ko war mun ta tiim dégg nga waaw su boobaa am na ñeent wax am na ñi ñu ne julli da koy wàcc am na si yenn si yenn si borom xam-xam nee nañ julli da koy wàcc maanaam di julli am na am na ñu ne noonu lay jullee rek mi ñaar am na ñu ne dégg nga dafay dafay xaar ba am ba mën a jàpp wal mu mën a sango wala mu tiim daal di fay am na ñu ne déedéet dafay julli après su paree maanaam dafay julli noonu su demee ba mën a fay maanaam su ba su demee ba mën jàpp wal mu mën a sang wala mu mën tiim après daal di fay kon am na ñeenti wax bu si njëkk mooy du julli du fay ñaareel bi mooy dana julli léegi te dana fay dégg nga ñetteel bi mooy dana julli léegi te du fay ñeenteel bi mooy du julli léegi dafay xaar ba mën a jàpp wala mën a song wala mën a tiim daal di fay amma bu nekkee ne laab si sobe moom bu nekkee nit ki moo ko tey julleeg moom julli gi baaxut bu nekkee ne julli na ba pare daal di ko fàttaliku te tayit ko dégg nga su boobaa waxtu bi su génnee jege nañ ko su génn sopp nañ mu mu bamtu ko su demee nag su jullee ba si digg ba dooga dookaa fàttaliku moom <clears throat> jul ne ba si digg ba dookaa fàttaliku kooku noonu waaw mu nekk waxtu bi yaatu na na dagg dem julli gi nga eh, na dagg dem defari ko mu nekkee ne waxtu bi yaatuwut na continuer ga ndax dem waxtu moo gën dab laab amaa bu nekkee loolu nag mooy laab si moo xam na si yére bi la wala si barab bi wala si yaram bi ama bu nekkee sutura awra la moom bu nekkee moo ko tay julli ga baaxut bu nekkee dégg nga tayit ko ba julli ba pare doo ko fàttaliku kooku na bàmm si waxtu bi si waxtu bi génnee jégal nañ ko ama bu nekkee da kaa munut carrément moom da munut kooku na jullee noonu su paree donte sa waxtu bi génn gut du baamtu amaa bu nekkee tamit jublu xibla la noonu la su ko tayee ñàkk jublu xibla julli gi baaxul bu nekkee nag dakaa fàtte ba julli ba pare su waxtu bi génnee jéggal nañ ko su bi génn sopp nañ moo moo baamtuwaat si waxtu bi bu nekkee nag moom mënul ko ba julli ba pare doo kaa mën jéggal nañ du baamtu benn yoon waxtu bi génnam génnul dégg nga waaw nana wax ju bëri nag ak ak ak jëf ju mooy li nga xam ne daal soo ko soo ko defee si julli ku la gis day yaakaar ne yow sa nekkoo si julli ñu ne wa awratu rajuli awraay góor maa bayna surati mi ngi tàmbalee sa diggante jimbax ba ila rukbati jëm ba si bëti omiya bu nekk awra góor moom mi ngi tàmbalee sa jimbax ba ba si ba si kon nit ki si jëloon sar benn serviette mooy malaan rek xoddoo uh, ko mu mu ëmb dégg nga mu muur jimbax ba ba si bëti omiya kooku noonu julleem wér na mais sib nañ lam def parce que nga sol yére yu jot moo gën de ndax am am ak euh, respect sa borom loolu mooy awraay góor mooy mooy awra bi nga xam ne daal warut kaa génnee waaye bu nekkee moom julli na lu dalee si bëti omiya ba si jimbax ba am na la sa feeñ dañu seet bu nekkee pax-pax ba muy demee duus la wala bën bën wala awra ba mooy awra bu bu muy tuuree ndox ñaar yooyu ñoo feeñ suba julli gi baaxut bu nekkee moo ko tey amma bu nekkee nag moom la feeñ nekk na sa diggante bëti om yi ba ba waaye nekkut pax ba wala awra ba mooy la muy turee ndox comme ça lupp gi moo feeñ wala ginnaaw ga su mooy ginnaaw gu mu toogee su boobaa dafay baamu si waxtu bi su waxtu bi génnee jégal nañ ko kon dont sax moo ko tey julli gi donte yooyu noonu bu nekkee moo feeñ dont moo ko tey julli gi baax na mais dafay bàmb si waxtu bi si waxtu bi génnee jégal nañ ko bu nekkee tayit ko feeñ loolu moo feeñ te tayit ko kooku nag continuer kooku su jullee ba pare sax du bàmt dégg nga wala boog su jullee ba pare dégg julli gi baax na dégg nga amaana bu nekkee awra bi moo feeñ mooy fa toure turee ndox wala fa muy demee duus boobaa nag lañ la lañ la waxoon sa ginnaaw rek te mooy euh, atteeb su ko tayee ak su ko mënut wala su ko fàttee kooku waxoon nañ ko si ginnaaw wal maraatu nag jigéen ku loxa lépp awratun euh, kon nag balaa ñuy jàll si jigéen nga nga déggee si ne góor moom kon la ko déggee sa oom ba si suufu tànk yi ak la ko déggee si jimbax ba si kaw boobu lu sa feeñ julleem baax ba tey waaye nag muur ko moo gën loolu lenn lenn su si la ko def gis ji mbax ba jëm ba dënd ba loolu noonu def na lu sib rek parce que nit dafa war a am respect ak boromam wal maratu jigéen kulluha léppam awratun awra la maa adal wajha lu may kanam ga wal kafay ak ñaari tënk ya eh, dégg nga jigéen daal léppam léppam awra des kanam ga ak tënk ya te cat loxo ya ak dégg eh, cat baaraam ya tànk ak kanam ga amma bu nekkee karaw ga la yooyu noonu moom awra la amma lay lay awra bu xiis si moom jigéen te mooy diggante côté wen ba ba si dégg ba si bëti omi loolu su feeñee len si si feeñee te moo ko tey julli gi yàqu na bu nekkee tayit ko ba si digg ba mu xalaat ne nekkate moom loolu buut na ko dagg dem muuri ko bu nekkee nag julli na ba pare doo ko fàttaliku kooku dañu sopp mu bamtu si waxtu bi si waxtu bi gën a jege nañ ko amaa bu nekkee mënut ko moom ba julli ba pare doo kaa man du ko bamtu amaana bu nekkee loolu feeñut mais la ko la feeñ mooy diggante oom ya ba si suuf tànk yi wala diggante dënd ba ba si ay karaw ga yooyu noonu ak ay cet loxo ya kooku noonu sib nañ lam def mais julli gi baax na waaye dañu sopp mu bamtu de dégg nga watu ko def nañ sib asalaatu julli fi saraawiri si tubi kese ila ida kaana lu may mu nekk fawqahaa sa kawam shay'un dara sib nañ maanaam nit ki si solee tubéy kese tubéy boobu nga xam dana muur mbax ba ba si omee kooku noonu juleem baax na mais nañ lam def wa man tanajasa ku sobewu thawbuhu yéreem wala mu yejit ta amul thawban yére gayrahu budul moom wala mu yejit ta amul maa ndox yaxsiluhu ba boo xam ne dana ko raxasee bi si moom aw lam yakun wala sax nekkul indahu fa moom maa yalbasu la muy sol xatta yaxsiluhu ba ba raxas ko wa xaafa mu ragal xurujal waqti génn ak waxtu bi sallaa na julli bi najasatihi si sobeem kii yére bi yéreem dafa sobewu yéreem bi dafa sobewu te amul beneen yére bu mu sol kooku na jullee noon dégg nga wala boog yëreem dafa sobewu waaye amul ndox mu ko raxasee na jullee noon wala boog yëreem dafa sobewu am na ndox mu ko raxasee mais su ko raxasee du mën na kaa weer mais du amaat beneen yére bu mu sol kooku na jullee noonu kon képp ki nga xam ne sa yére dafa sobewu te amoo beneen yére bu dul yére boobu kes yére boobu rek rek rek nga am te ab munoo ab kenn yow rek yaa fa nekk su boobaa mën nga julee sobe soos noonu bu nekkee dégg nga naka tamit yére ba am nga yére waaye tamit amoon ndox moo ko maanaam sa yére bi sobee na mais amoon ndox moo ko raxasee tamit te boobu rek moo fa nekk na nga jullee noonu wala boog yére bi sobeewu na mais am nga ndox moo ko raxasee waaye soo ko raxasee ba pare soo ko weeree doo amaat beneen yére boo sol ba boobu wow na nga jullee noonu bu nekkee da ngaa waxtu ba génn lañ la wax nag bu nekkee mën nga kaa mën nga kaa euh, mën ngaa mën ngaa fóot yére ba dégg nga su ngaa fóot yére ba te am nga beneen yére boo sol danga koy fóot bu nekkee tamit mën ngaa am beneen yére da ngay am beneen yére wala boog leer na na waxtu bi yaatu na. te mën ngaa génn euh, sa kër dem lijjanti beneen yére te waxtu bi du génn da ngay dem defi ko amaana bu nekkee balaa nga génn dem dem di ko wuti sax waxtu waxtu ba day génn te mooy loolu mooy nga ragal waxtu ba génn su boobaa dañ lay jéggal nga julee noonu wala yaxelu du dagan taaxiru salaati yéex a julli li adami taharati ngir ñàkk laab ñàkk laab bam tere laa julli loolu noonu daganut parce dab waxtu moo dab laab wa man faala ku def zalika loolu faqad asa mooy na rabbahu boromam de dégg nga képp loolu mooy boromam wa lam yajid ko am wa ma lam la muy sutraale bihi si moom awratuhu awraam salaana julli oriyaanan di aji rafle képp ki nga <coughs> dégg nga képp ki nga xam ne amut lum suturaalee awraam na jullee noonu rafle waaw bu nekkee jumaa moo ko waroon te amut benn yére bu mu suturaalee awraam kooku na jullee këram jullee néegam dégg nga waaye nag mën na rafle nag wa man axta ku ku mooy al xiblati xibla ah dana baa mu fi waxti sa waxtu ba moom dafa mooy xibla te moo <laughs> te ko ko kooku noonu da nga naan na baamu sa waxtu ba sa waxtu bi génnee jégal nañ ko ku la iadati bépp baamu fil ba fa hiya moom fadilatu ngëneel la bépp julli bu ñu la wax naan da ko baamu sa waxtu ba dégg nga soxtu bi génnee jege ko loolu ngëneel la dégg nga waaye nag bu na nga ko na nga ko maanaam bu nekkee dañ laa wax ne julli googu julli woon baaxul na nga ko bamtuwaat boobu nga ko a bamtuwaat amaa bu wax ne julli na mais sopp nañ nga bamtuwaat kooku noonu ngëneel la maa tuaadu lépp li ñu bàmmu minhu si moom asalaatu julli fil waxtu si waxtu ba falaa tuaadu defuñ ko bàmmu minhu si moom julli gu faat wa naafilatu ak naafile bépp julli bi nga xam ne da nga fa bàyyi dara ñi la nanga ko bàmm si waxtu ba jàppal ne euh, euh, <coughs> bu waxtu bi génnee duñ ko faat naka noonu tamit bu nekkee julli googu noonu waaw julli fay la tamit duñ ko maanaam duñ ko bamtu bépp buñ la wax ne baax na mais sopp nañ nga bamtu ko si waxtu ba boobu si waxtu bi génnee duñ ko bamtu naka noonu bu nekkee julli fay la tamit nga bàyyi fa li nga xam ne dañ laa wax nga bamtu ko sa waxtu ba kooku noonu doo ko baamtu parce que euh, julli googu noonu waxtu moom génn bu yàgg naka nakon tamit bu nekkee naafila la tamit doo ko doo ko baamtu ma jox misaal mel ne la ku doon julli dégg nga fàtte su fàtte sutura awraam ba julli ba pare kooku noonu julli baax mais dañ kaa ko mu baamtu sa waxtu ba bu nekk waxtu bi na du baamtu tamit bu nekkoon ne julli tamit julli julli gu passé la ko baamtu ndaxte julli googu noonu amul waxtu nakon bu nekkoon ne naafila tamit waaw mu fàtte sutura awraam ba julli ba pare du ko parce que naafila la loolu mooy <coughs> darsu ba in uridu ila al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu